fin d'année bu musul am fenn ak Welma boutique la bière des VIP ay cadeau yu neex pour anne bii du 13 décembre au 13 janvier Welma mi ngi en promo li ko dalee moins de 30 pour cent 50 pour cent ba sax 70 pour cent wàññil nañ leen ko pour seen fin d'année mën a neex ñoo ngi Sacré Cœur 3 derrière boulangerie jaune ci koñu mbay Dieye Faye bi wala sax ngeen wooñu ci 77 555 21 67 wala 77 370 43 43 Welma boutique le prix s'oublie la qualité reste. waaw Stade Lamine Gueye fekk fi Cheikh Niang doomu Boy Niang ah doomu doomu nijaayu Boy Niang doomu nijaayu troisième combat Danda Mayo bu Sibassor ak ki nga xam ne mooy nag bu Passy nekk ci Diadiouma Diouf wala wala wala bi nga ñëw fii Kaolack lan moo tax nga nekk fii bu léegi maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Lamine di nuyu ñëpp di nuyu Sénégal gépp di jox ñëpp seen wàccuwaay boo gisee ma ñëw fii contrat moo ma fi indi parce que dama fiy bëri le 8 janvier ndax nit ki da ngay respecté sa contrat booy ñang sama rakk la te lépp li ma war a wax mbaa lu ma war a jëflante ak moom maa ngi jëf lépp lu ma war a wax maa ngi koy wax mais boo amee contrat ñu woo la il faut nga ñëw remplir sa contrat parce que loolu moo yoon moo ma indi tey Kaolack loolu rek moo ma indi kaw rek waaye pare nan incha allah rabi. nga ne lan ngeen. ñun pare nanu. mystiquement physiquement. lépp pare nan ko Lamine parce que booy dem guerre doo bàyyi dara doo bi ban combat la lay ci combat yi Boy jot a bëri. waaw combat bi li may fàttali mooy ci combat Boy Niang ak euh, Sa Kajoor ak diggante Boy Niang ak Sa Thiès loolu la jox parce que ñëpp dañoo jëloon favori jox ko Sa Kajoor seen combat. bii ñu jël favori bi ak Sa Thiès jox favori bi Sa Thiès mais am na lu ma leen dama ne leen Boy Niang ko ci digganteem ak Sa Thiès muy def open presse ma toog ne leen bis bu jógee ci Sa la ñuy xam kan mooy Boy Niang waaye dëgg-dëgg Boy Niang incha allahu rabbi suba lañ koy xam suba la ñuy xam kan mooy booy Niang. kon amateur yeeg nitu lamb yëpp ak lu lamb suba dañuy jommi ci Boy Niang. wallaahi incha allahu rabbi bu neexee yàlla suñu borom la yàlla la mu maye woon bu ko nanguwul te yàlla ñu suñu borom defal ndam loxo dem gémmiñ bu neexee yàlla suñu borom. maanaam ma ne nit ñi ndax suba dañuy jommi. noo suba la di xam booy ña xam nga dégg nga lim leen wax nee na leen damaa bëgg suma paree ci dafaatin ñëpp xam kan gën a xam kan mooy booy ñaa waxoon na leen ko ci digganteem ak Sa Thiès waxoon nañ ko ci ñu ne ko booy ñaa sa diggante ak Sa Thiès mu ne leen li ma gën a neex ci moom yow la ko waxoon Lamine mu ne leen li ma gën a neex ci combat bi ñëpp danoo jàpp ne Sa Thiès bërekat la. ma ne la Lamine yow la waxoon loolu am na benn bis mu ne la ngeen toog ci digganteem ak Sa Thiès mu ne la Lamine ñëpp danoo jàpp ne Sa Thiès kat la waaye bis bu nu bëree ci biir bëre ba dox ci ay ndox ndoxtu bëre ba bàyyi su ma jógee kapoo la may wooyee. ne leen waat Taphatine mii su ma ci jógee la ñëpp di xam dëgg-dëgg kan mooy Boy Niang. est-ce que lay Taphatine mooy mooy Niang. est-ce que Taphatine. la ca Taphatine mooy Sa Thiès. waaye déggoo li ma la wax xanaa dama la ku nekk ak lan lay indil. parce que ñun pare nañ lépp parce que tafaatin ñun teguñu ci suñu ñun suñu daa jéggi tafaatin ci leneen la ñuy nekk booy ñaa bëtam leneen lay xool waaye du tafaatin wallaahi maa la wax lii tafaatin taxu koo jóg. jërëjëf général jërëjëf léegi nag Petit Berendé waaw booy kii ninki nanka ñëwal na tous ana waa nangaan ana waa nangaan ana ñu ànd ak Petit Berendé ñoo ko gën a bëri ah. moom paa bi waa nangaan ñu war a seen de la xale yi pare nañu bu yàgg xale wax daal baaxul Lamine Lamine yàlla na nu yàlla may fekkeek tal ba subaak jàmm billaay wallaay taalaay bu subaak jàmm ngay xam ne kii mooy booy ñaa mooy doonay booy ñaa waaw. mal day curuxu curuxu. curuxu curuxu ak xoolal xam nga am na benn fecc bu bees bu mu génne yow yaa ngi koy dégg tas na keroog bon beres ba. saakaane. déet ñortaa bi saakaane lan ñun dañoo wax ay waxe saakaane. bi saakaane kii man. waa léegi nag ay waxam. jërëjëf ñor taab bi jërëjëf général Boukou Tall nekk ca Ajuma Diouf léegi nag petit Belende bokk ko jëri nañ ki nan ko mooy tous moo ngi àndal mag jo mooy Belende troisième combat daan na ma yóbbu si ba saa rëbb pasi ci jëwn ayca bokkut ak mango weer ngi nag ñor taab bi li waaye doon jaay léegi mu lamb de. Tafatin nag nga sëb léegi diggante daan na maayo. ak nga bu basi ah saakaane saakaane man ay man la mi bala maa dee ñoo ay saakaane. xoolal curuxu ci ñun la fekk baax danañ fecc lu neex incha allahu rabi danañ xeex lu neex danañ bëri lu neex yàlla may ñu ndam bu ci kàttanu yàlla. kon yow gëm nga ni boo ñaa day daan Tafatin. waaw Lamine nag ñun buñ gëmul ne booy ñaa day daan Tafatin booy ñaa nee naa la di xool danoo lem ay dossier am tege ko ne le ñun pare nañ ci incha allahu rabi ñun xoolal suñu bët jéggi na tafaatin leneen la ñuy wax te bu subaa nga ciy xam dara. le géant ngeen di bëral de. waaye ban géant booy bi moom lan la yow da ngeen di fekk koo xam ne ab volim am doon mag yaramu mag wi daanu ci kam kii doon xale bu ndaw liggéey ba doon feer ngeen naan ma ay ay géant da bo ban géant. te nag kaay la. ñoo ko xale yi ni yaa ngoog. non non non waxal nañ wax ci làmb ji ngay wax dëkk ba. xale yi ni yaa ngi noonu. Petit Belende. koo kii ni ki nànk. ko affaire bawol gépp ngeen naan ay bawol bawol piir la. waa léegi dëkk bawol ak dëkk kajoor lan la ci combat bi. non xam nga ñoom ñoo ci indi loolu. parce que ñoom boo waxee ñu naan ñun ay bawol lan waa bawol nangam ak nangam nag mais dañ leen a bëgg a wax danoo nekk bawol ñu dëkk bawol na loo xam ne jaxase ay nit la léegi-léeg dañ ñun bawol lan dëkk pour waa bawol sotle leen te ñun it bawol lan bokk dëkk ñun ñii parce que waa bawol buñ sotee booy ñang sot seen doom sot seen deret te loolu du am ndax ñun bawol lan dëkk ñi ñoom làmba ñu boole rek nan bëre jóge fii te bàyyi ay affaire yi bawal yi ni indeek ay affaire yi ak nangam yooyu taxawul booy bi xale la te am na fu mu teg bëtam te ayca ayca ayca incha allah combat bi ci géew bi dan na maayolo ak ki nga xam ne mooy Nabou Passy ñoo ngi ci géew bi booy ñaa dàq bëri booy ñaa ëpp fit. a doon jàmbaar. booy ñaa gën a doon jàmbaar moo gën a wow bu fekkee ne doole la ñu yoon maa ëpp doole maa gën a feere. booy ñaa moomu doole tabaat. yéen doole du volume. ah, ah. xale yi ñu ngi ci naan yaa ngi wane seen bopp de. kooku mooy Petit Belende moo ngi ànd ak mag ja Belende. volume sol sa volume bu bari rek loolu du doole doole tëyal të la. bis bu nu ah, jàppante ngay xam. waa Ndangar yaa ngoog de. booy ñaa ku ko ci ëpp doole ñooy xale yi ñu ngi koy teg lu métti muy liggéey doon xale kon amul kenn ko mën a ëpp doole xale bu ndaw nga xam ne li ma ko màggee kenn xamul nu mu dol Tapha Tine moo ma mag fuuf ba muy taxi fii ab taxi man la woon Dakar daa taxi ba jaaxle ñëw bëri daa taxee taxi ba am ba aase door a ñëw bëri yaa ngi gën a mettre combat bi ci Boy Niang de. yaa ngi. gën a mettre combat bi ci Boy li ngay wax nii Tapha Tine day gën a mer. Tapha Tine bu meree lay gën a baax ci ñun. bu gënee mer fekk fi ñu ko gën a mer téeméer. ñoo ngi nuyu président CNG la lit. maam ko fay ñoo ngi lay nuyu. di nuyu membre CNG bi yëpp. nuyu bi nga dama na ah jël am na de. yàlla may booy bi wër may ko kàttan may tafaatir wër ba mu ñëw bu subaa ak jàmm ngay xam ne lépp dëgg la. billaay wallaay maa la wax lii Lamine suba rek nga xam ne booy ña ngay booy ñaa barke Rasulullah jàppaa coli gaa ngi noonu. curuxu curuxu curuxu booy ñaa bu la jàppee da lay curuxu curuxu. xam nga ne curuxu curuxu rek dafa doy waar poids lourd yi curuxu curuxu rek lay def ak ñoom curuxu curuxu curuxu te curuxu curuxu dafa am lu mu nag. lay wax amateur ñu ñëw ci jàmm ak salaam. supporter yi amateur yi. rëbb bu pasi daan na daan na maayoo jël benn went léegi nag. ñoo bokk léegi nag muy magi booy ñaa ñu bokk lépp nag di wax ne lépp nañ ko def ci fair play Tapha Tine sunu mbokk la suñu lépp la sénégalais la ñoo bokk lépp làmb ñu boole te làmb sport la tàqalewul day boole. waaw li nu war a jàppee làmb ji mooy Lamine man kii def violence ci làmb man soxlawuma la bëgguñu laa gis parce que ñun làmb mooy. Bébé Ñax bu Siba Soor ci géew mi Cheikh bu Parandu ci géew mi nga xam ne làmb làmb la rek waaye doon jaay léegi mu lamb suñu borom moo yor xale yi ninki nank yaa ngi noonu kon nan ñëw ak maas ñëw seetaan sañselu rafet ku nekk ñooy xale yi ninki nank yi nekk ci Ablaye Fall supporter yi Boy Niang supporter yi ah, Tapha Tine jënd leen Petit Blindé mu ngi ànd ak mag ja Blindé waaye Blindé léegi ancien gulaar ñoom ñooy ne ci géew bi jëflante li ñu war a jëflante xeex bëre Sénégal yëpp kontaan Boy Niang daan ko jël bu rëy ñu ànd ñoom ñibbi kontaan naa ci waaw ñu ne ci jàmm jaajëf Lamine fin d'année bu musul am fenn ak Welma boutique la bière des VIP ay cadeau yu neex pour année bii du 13 décembre au 13 janvier Welma mi ngi en promo li ko dalee moins de 30 pour cent 50 pour cent ba sax 70 pour cent nañ leen ko pour seen fin d'année mën a neex ñoo ngi Sacré Cœur 3 derrière boulangerie jaune ci koñu Mbaye Dieye Faye bi wala sax ngeen wooñu ci 77 555 21 67 wala 77 370 43 43 Welma boutique le prix s'oublie la qualité reste.